ñu ne leen amu leen droit dox loolu infraction la ah prison bu Gàmbi li ko waral mooy damay dox dem Bakel ñu ne ko doo dox soo dugg Bakel dang dul dox marche lu am. mais li gën a garaaw mooy Bougane bi nga àndoon yeneen ñaari leader Thierno Bocoum ak Anta Babacar Ngom mais moom lañ ci seppi parce que moom dafa sonal gaañi nag moom mooy déranger pourtant Mourou Thierno Bocoum dina ma day dox Anta Babacar yi day dox ñuy avancer ñu leen niip. bu gaan téye loxo yi ni ko da ngeen may jàpp parce que man damay dox dem de ñeeni dañuy dox de waaye ñu mbennum bugaan lañ seppi ti bugaan gaare nag convoi bi bàyyi ko ci mbedd mi nar a dox ñu ne ko dox boobu nag la ñuy bañ parce que président mu nekkee jur Diourbel wala mu nekk Thiès wala mu nekk Mbour kenn du dox dugg Mbour kenn du dox dugg Thiès kenn du dox dugg Touba wala Tivaouane boo président nekkee ci sëñ Babacar sëñ Maysi Mansour mais yéen ku jógee sëñ ñoom da ngay taxaw amoo droit dox dugg dugg dugg dugg dugg Tivaouane ku jógee ku jógee ku jógee maître tey am nga yaakaar ne euh, procès bi tey fi lay yem ko bàyyi dem ñibbi ah bu fekkee ni kay amuñ intention téye ko prison ndax ah li fi nekk nii de wala ne bugaandu bandi jaayul drogue rayul nit mbëkkul benn gendarme saagawul benn gendarme bañ ne koo toogal dafa dafa oto yi wàcc ba wàcc liñ ko téye dara mooy damay dox dem Bakel ku la wax leneen day wax lu ko neex damay dox bu ngeen ma arrêté ma bàyyi fi convoi bi dox ñu ne ko doo dox ko yaa ngi prison loolu nag tey buñ ko bàyyiwul nga xam ne am na leneen lool ci làqu buñ bàyyiwul tey bugaan Sénégal yëpp maa ngi leen xam leen di kon dafa am lu ci làqu xëy na li ko tere def campagne ba léegi li tax ñu téree ko def teguñu ko fenn kon mooy continuer kon xanaa loolu rus nañ ko def tribunal bi ma gis ñi ñu déglu a ah, gëwuma ni dina def ëllëg lu ñu di xeebee. d'accord ah, ñëpp a gis ni mu demee. avant avis maître avant avis lan moo nekkoon état d'esprit bi nga jàkkaarloo moom nu mu meloon devant la barre. Bougane ah gisoo ko muy jongle <laughs> gisoo ko gisoo gisoo ko gisoo ko mu mel ni champion d'Afrique ah gisoo ko mu mu muy toj affaire yi leer du dugal ay but du dugal ba gars yi jaaxle procureur jaaxle ñëpp jaaxle gars yi di dañu wax bu ñu xool di waay kii lu ñu ko indee fii <laughs> sa waay tooñ nañ ko de kii lu muy def fii place bandi yi ñu naan ëndandoo moom mu tëdd ci lali bandi yeeg néegu bandi yi kii bandi la kii di dimbale ñu sonn indi ay ay ndimbal li la mérité damay dimbale waa Bakel yi sonn lii la mérité yéen waa Sénégal ku waxul dëgg wax ca des yàlla nañu yàlla musal ci dul dëgg yàlla yàlla dimbale ba tribunal bi yàlla leeral xelam teg ko ci saatal mustaqima bu attee dëgg ndax lu atte fii dëgg yow attewaat ëllëg sey yàlla am na de ëllëg dañ ko sóoraale gars yi tooñ baaxul tooñ baaxul. résumé en français monsieur maître Diouf. ce qu'on peut vous dire c'est que vous avez constaté vous-même que le dossier est vide. Vous avez suivi les déclarations des témoins, des gendarmes eux-mêmes. Ils ont montré qu'il n'y ait pas d'outrage. Ils l'ont même mentionné dans leur déposition. Pourquoi, monsieur le procureur, a-t-il retenu le délit d'outrage qui n'existe pas C'était ridicule, c'était un, un dessein, un besoin, une intention de charger le dossier. Mais aujourd'hui, c'était ridicule. Pour la deuxième infraction, la rébellion, tout le monde a montré, y compris les gendarmes témoins, que Bougan n'a fait aucune résistance et même rendu en disant clairement aux gendarmes que si je ne marche pas vers Bakel, arrêtez-moi. Et le capitaine de lui dire, comme vous voulez que je vous arrête, monsieur Gay. Donc on a arrêté Bougan parce qu'il a voulu se rendre à pied à Bakel, abandonnant même son cortège. Mais malgré tout, on l'a arrêté. Pourtant, il était encore badji entre Babacar et de Tcherno beaucoup. Mais c'est qui n'ont pas été Donc c'est Bougan qui les intéressait. Parce que Bougan dérange dans ce pays. Vous tous, vous le savez. Bougan dérange. Bougan dérange. Il fallait l'arrêter et l'empêcher de battre campagne, de participer à la campagne électorale qui a déjà démarré. C'est injuste. Vous Pour la troisième infraction, la contravention. le refus d'obtempérer. Mais non, on a montré aujourd'hui que Bougan, chaque fois qu'on lui a demandé de s'arrêter, il s'est arrêté. Il s'est exécuté. Il a obéi aux ordres des gendarmes. C'est pourquoi même il avait décidé de marcher en abandonnant son cortège. Donc en disant qu'il y a refus d'obtempérer, on raconte des histoires. Donc aucune infraction n'est constituée dans ce dossier. Il y a un souci manifeste de faire mal, de l'envoyer en prison. Qu'est-ce qu'il a fait Aider des populations. Vouloir aider des populations sinistrées, des populations chassées de leur maison par les eaux, des populations qui sont dans la misère. Et il a l'habitude d'aider les populations en difficulté, aussi bien celles de Kerbassar, les populations de Kerbassar, celles de Touba et ailleurs, et même aujourd'hui, les populations de Bakel. et ça dérange tous les autres ne font rien. Et ayant tous les moyens, ayant le pouvoir, ne font rien. Lui, il fait. Mais ça frappe la conscience de là qui n'ont rien fait. Et qui doivent faire, et qui peuvent faire. Mais lui, avec ses moyens, il fait. C'est ça, Bougane. Maître, vous, savez, vous, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, le, le, procès va Je l'espère, parce que face à un dossier vide, confirmé par les témoins et les témoignages. Rien, rien ne charge, absolument rien ne charge M. Bougar Dani. Tout est pour sa relaxe pure et simple. Comment peut le retenir encore à Tambacounda, dans la chaleur, en pleine campagne électorale, alors qu'il a rien dans le dossier Il n'est pas un bandit, il n'est pas un trafiquant de drogue, il n'est pas un voyou, il n'est pas un criminel, mais il n'est pas un violeur. Mais comment peut-on le retenir ici alors qu'il est candidat aux élections législatives Alors que c'est un leader dans une coalition. Comment peut-on l'empêcher de participer à la campagne électorale Je pense donc qu'aujourd'hui, le tribunal va vider, va rendre compte, le tribunal va décider, le tribunal je le pense, le tribunal est composé d'hommes Et son état intelligent son... et certainement humain. et, sérieux et rigoureux et juste. Parce que serait injuste de retenir davantage Bougar Gaydani, qui doit être relaxé. Aujourd'hui, pour le plus grand bien de la démocratie sénégalaise et pour la victoire du peuple sénégalais. Euh, Je pense que je pense qu'il sera relaxé. Tous les avocats sont optimistes, le public est optimiste. Le tribunal lui-même sait qu'on a chargé Bougane. Outrage, rébellion, refus d'obtempérer. Un communiqué mensonger de la gendarmerie qui dit qu'on a demandé à Bougane de laisser passer le cortège du président alors que ce n'est même pas la même route. Ce qui est faux. Le président devait venir par les airs qui de Tambacounda Et Bougane est parti de Wurusogi vers Bakel c'est deux routes distinctes vraiment c'est ridicule de retenir Bougane de l'arrêter et plus grave encore de l'emprisonner c'est vraiment injuste ah oui est en forme il ne mange pas depuis plusieurs jours mais il me dit je bois je dis Bougane tu vas mourir ah il me dit non vous m'avez vu en grande forme parce que j'ai la foi dans la dignité et je veux me tester moi-même pour savoir jusqu'où va ma résistance et ma résilience. Cet homme est un modèle de courage, de dignité, de persévérance dans l'effort, d'abnégation, de résilience. Cet homme, aujourd'hui, sa place, c'est parmi les leaders politiques de ce pays. Ce n'est pas là-bas, à la prison de Tambacounda, où dorment des criminels de toutes sortes, des bandits, des voleurs, des escrocs.